jërëjëf mbokk yi nga xam ne yéen ñu bàyyi xel ñu leen di boole ci juróom baat ñu yàlla boole gën a sell gën a tedd mat wulis bépp néew te bi néew mat ko wulis ma tibbeeg sama xol jëm si jëm yu tedd yooyu mu baatu salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. tey nag di ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru koor ñu fas yéene def spécial Cheikh na Cheikh Saad Bou fas yéene sekk waxtaan wi ak jàmbaar ci biir tarixa bi. le fondateur du mouvement Abrar ki nga xam ni moo jël ndaw ñi tàggat leen ci baatu laa ilaha illallah ki nga xam ni moo fekk ndaw ñi ñu nekk ci beneen yoon mu teg leen fa teg leen ci yoon wu jub dëgmal leen ci yoonu yàlla saxal ci seen dënd baatu laa ilaha illallah muy cheikh Mouhamad Lamine doomu cheikh Saybata Aydara ñu ngi lay nuyu di la jaare di la ndokkeel ci weeru koor gi di tuub bu baax a baax xam naa dina métti ñu loolu toog ñu toogoon doo ak yow ci kaw ñu la bu baax a baax ndax sàng rek ngeen mos doon ci ñun tubaarkàlla ngeen suñu pap suñu lépp xanaa ñu bàyyi rek ngeen ñu ñi nga xam ne ñu ngi la bàyyi xel ci almuxtaar incha allah بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي إلى الهدى هدانا ثم إلى طريقة شيخنا ومولانا شيخ عبد القادر الجيلاني أه، بوكي جولي تيني ستان تي شان المختار تي في نيونغلين دي نيو بباخ ديرين زيارة تي بير بوتاد قماق دي شهر رمضان muy weer bi gën ci muy weer bi gën a màgg ci weer yi weer bi nga xam ne si la yàlla wàcce alquran azim weer bi nga xam ni moo làmboo guddi bi gën ci guddi muy laylatul qadr ñuy sant yàlla bu baax mi xam ni moo ñu mayoon ñu fekke ko daaw fekkewaat ko ren ñuy ñaan yàlla subhaanahu wa yàlla defal jàmm Sénégal ak mboolem réew yi wër Sénégal ci barke Cheikh na Cheikh sado bi jërëjëf sunu papa sunu sëriñ sunu lépp Cheikh Mouhamed Lamine Seybatta comme ni ma ko waxee léegi léegi incha allah ñu fa seen def waxtaan waam solo waxtaan wi nag xëy na dañ ko tënk ci ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru koor bu ñu ko waxee xel yëpp dem ci Cheikh na Cheikh Saad bu bis bi muy dem bis bi muy dénkaat bi yu am solo yooyu bis bi nga xam ne ci lay sukkuraat di bind xasidaam boobu yaa naf suñu xam waxal la faaw bis boobu nga xam ni bis bu tiisoon la ci tarixa bi mais laataa ñuy ñëw ci li nga xam ne moo war a jëm-jëm plateau bi ay dara dañu lay bàyyi rek nga ñëwul ñu maanaam ci juddug Cheikh Cheikh Saad Bou mu mel ni que ku judd juddu bu riis la moom Cheikh Cheikh Saad Bou jërëjëf Ousmane juddu ku màgg ku tedd ku sell nga nu laaj mooy Cheikh na Cheikh Saad Bou abi ibn Cheikh Mouhamed Fadel ibn Amin Cheikhna Cheikh Saad Bou moo ngi juddu ci barab boo xam ñu ngi koy wax Aynul Fath Aynul Fath moo ngi nekk ci soixante dix kilomètres de Naama Naama mën naa ni mooy frontière Mauritanie ak Mali yàlla def waajuram di Cheikhna Cheikh Mouhamed Fadel ibnu Mamin ibnu Talib Xiyaar ibnu Jeel Muxtaar بتي الحسن بتي فاطمة الزهرة بتي علي بتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اه، يم تدوم مريم تحمل العبدي مجيجين جو باخ جيجين جو سل جو خمني moom am na بند سانتي bind sante تي تان ci tànn gi ko waajuram tànnal yaay ju mel noonu moo bil أمي فإنها أتت بي من شيخ له البر والفضل يعني ما يالا فير سما واجر جيجين من خمني تنن نما واجر جوجور جو خمني بروم جنل بروم تدنغا موشان شامد فاضل ولي نانا مرب ولي بخمني لا يبارى كنا تامبلول ولايام عناية وفضلا تنباخ وما في الكون قطعا له عدل ت أدنا أمول كن كوني منجل أكموم مشانا حمد وبالفوز والرضوان يجزي لوالدي نانا نك يانما يالا فايل سما واجر بقور من mi nga xam ni moo ma tànnal waajur bu jigéen boo xam ni كريمة أصل برم جد قريلة ما تزين بريبة مصدف لنعو كما ساد أصل بعلي ساد لها الأصل ليالا دف بيالا نميتي برم كرم منك ست رسول الله صلى الله عليه وسلم نونو ليالا نمتي مومت منك جنتي جيجيني مي مريم تحمد عبدي تركال مي نونو كون مجدو تي نيار نيو مجدو تي نيار الباخ تركال الله ndax bàyyam ju baax ji Cheikh Cheikh Mamadou Fadal waaye yaayam ju baax ji soxna Mariam bi maanaam bu ñu doon ñëw ci dund Cheikh Cheikh Saad lan lañ ci ñëw ci dund Cheikh Cheikh Saad dund Cheikh na Cheikh Saad bu Cheikh na Cheikh Saad bu dafa nekk góoru yàlla boo xam ni dafa am maqaama bu tudd al inaayatu al ilaahiya al inaaya al ilaahiya dafay dugg ci martaba boo xam ni ilmul wahab la li cheikh na cheikh Saad bu dal cheikh na Mohamed Fadel am na cinquante deux doom yu góor quarante sept cinquante trois doom yu góor quarante sept yu jigéen euh, cinquante deux yu guur yooyu ñoom ñëpp kenn ku ci ne danga xar sa tànk tubéy dem uti xam-xam mais cheikh na cheikh Sadio bi ci benn anecdote boo xam ne daf ko dal ak waajuram cheikh na xam Fadal ak magam cheikh na cheikh Mal Aynin bu bu bu rakkam yi ak magam yi doon dem xëy di uti di jàng dem ci daara ji dem ci téere yi dem ci borom xam-xam yi leen di jàngal cheikh na dafa maanaam nekkoon koo xam ni daal kenn mënu la ko expliquer bu gaa yi di yow fajar cheikh na moo ngi nelaw ba benn bis ñuy dem cheikh na Mohamed di dox ànd ak magu cheikh na cheikh sadou di cheikh Medayni mi féetewu Maroc cheikh Medayni ni شيخنا محمد فاضل شيخنا شيخ سعد بومي سعد بولك وخ مونيكو ورننجوك تنبيرم مونيكو دوم إذا العناية لاحظتك عيونها نم فإن المخاوف كلهن أمان مونيكو بلا يالا تيجي بتم دي لا صلاة للبوبم بلا نخي نلا والبيان دور moom loolu moo ko dal maak yow nag lu nu ñafewul duñu ko am bàyyit saab benn bis sëram am lu muy dégg mooy seexam di suaadu mu ñëw ci moom ni ko saadu saad dama bëgg ngaraw ñépp sama doomu bàyyi mi bàyyi dama bëgg ngaraw leen mu ni ko suaadu lan la خمخم مرة جاها بقلبي السر الكوني والأمر مختفي وأمري أمر الله مذ كنت نائما gis nga men def lépp luy xam-xam te yàlla di ko xamal jaamam te suñu borom wàcce ko ci téeréem ba ñu tëgg ci ay yeneen téere xam-xam di ci firi alquran ak diine yàlla daxañ na ko sama biir xol mbir mi nag kumpa la ci yow ak say moroom waaye lépp luy diggante asamaan ak suuf yàlla xamal na ma ko te wan na ma ko te te te teg te teg na ko ci sama loxo kooku mooy Cheikhna Cheikh Saad mi ngi noonu kooku mooy Cheikhna Cheikh Saad Bou kon jàngee ci moom jàngul kenn mënu la wax ne man maa dalal baa Cheikhna Cheikh bu Bou euh, euh, muy lu yéeme te mu doonal ku bëri xam-xam mu doonal ku fees dell ak baatin la mais ci biir dundam mu mel ni que lépp mu da ko jox maam Seydina Muhammad بقم تي رسول الله صلى الله عليه وسلم دفني ضاع امتداح من لغيره مدح إذ غيره للمدح قطعا ما صلح دفني يمناتك وخمني دنغي جل تيسا تان لو من سكريفي اك بور لوم لومو تدون تدفوكو تي يونتي صلى الله عليه وسلم اك تربي يونتي صلى الله عليه وسلم ndaxte nee na kenn yelloowul way wala tagg walla nga jël sa xalima di bind ku dul yonant bi sallallahu alayhi wa sallam ni dellu tamit ni yaa laytani kuntu boo ma yow yàlla ba nga may sàkk man ma nekk cheikh na cheikh Saad nekk mindeef buy noyyi cey boo ma defoon ay pepp suuf yoo xam ne yonant bi buy dox dàllam sama kaw lay doxe ndax bëggam ci yoonu salaa sallam maanaam cheikh na dafa jaaye dëgg dëgg dëgg njureel ak taalibe cheikh na dafa fàtte ni deretu yonant salaa sallam sëtu yonant ak sët la mu mel ci maamam waaye booy déggee cheikh na muy joxañ maamam da xam ni cheikh na amul lenn lenn ak fenn fu muy wane ni kii mooy sama maam ci deret léppam daf ko jox yoonu salaa salaam. barkàlla mu mel ni que lépp da ko delloo Seydina Muhammad ba tax na ñun taalibe yëpp daal di jël suñu lépp delloo ko seen Cheikh Saad bu ndax ni mu mel ci maam Seydina Muhammad waaye kilifa gu nekk ci sa biir dund boo demee ba sóoroo dina tàggu ci baatin di nga am ay digle ak ay ay ay messages yoo xam ne di nga ko bàyyi laataa ngaa dem Cheikh Saad bu yan digle la def laataa muy fekki maam Seydina Muhammad. wax nga du am solo. cheikh na cheikh saad bu yàlla dafa def laata mu génn àdduna ci ay at euh, bind na li nga xam ni moom la ñuy wax testament euh, bu am solo boo xam ni ja àdduna bi yëpp mën na ci jël néew ma sax taalibe xaadir rek néew ma jabooti boppam waaye testament boobu dinaa ko jàng firi ko parce que dafa ni alhamdulillahi alxayi daaim albaaqi bacda fanaai xalqihi wasalaamaani ala sayidi alawalina wal axirin mu ni maa ngi sant yàlla bi nga xam ni moom képp dong moo dul gëmm moo dul nelaw moom mooy ki fi nekk ba faw muy julli ci yonente bi salallahu alayhi wasallam muy sangi aduna ak alaaxira sangi ñi mujj ak ñi ñi jiitu ak ñi mujj alladi abada allaha bi jiddihi wa ijtihaadihi moom mi nga xam yàlla ci jam ci ci ci ci jamu yàlla bu gën a bu gën a bu gën a dëgg ak bu gën a ci yoon ci ja ci waxinam muy sallallahu alayhi wa sallam ak jëfinam te denkaane na moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci kenn jullit war naa war naa bàyyi denkaane ci ginnaawam xaw fa mi mawtil faja ndax nee na dee day bette jullit laata muy génn àdduna war naa mën a defar ginnaawam ba muy mën a defar ginnaawam defar ginnaaw boobu la ci la ndenkaane yi bokk nee na wala xawla wala quwata illa billahi alali alazim nee na moo ngi wàkkiiru léppam ci yàlla hada wali yàlla min nadara fihi mu ni maa ngi bàyyi ndenkaane bi min abnaa'i wa muridiya wa talaamidati cheikh na yemalawul ndenkaane bi rek ci jabooti boppam dafa dafa dafa ci biir ndenkaane bi ju taalibe mi yëpp nee na inni أوصيتهم بوصية الله تعالى نانا مانجلين دي دنك دنكان يالا بمو يبن تاك سانغ بي صلى الله عليه وسلم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله نانا مو ينجك سان مو ينجك دنك نجابوتم أكتالي بمي موينا نراغل يالا تقوش صراط المستقيم ننفقو رجل يالله ragal yàlla nag mooy topp ay ndénkaaneem wartu ay tereem loolu mooy ragal yàlla mu dellu tamit ni yaa bunayya inna allaha astafaa lakum addiina falaa tamuutunna illaa wa antum muslimun mu ni samay doom samay taalibe yàlla daf leen tànnal diina lislaam ngal fexe leen ngeen tënku ci ba dee du leen bett ci leneen lu neexul yàlla xam nga dégg maa Ousmane mu maa ngi leen di dénk ngeen tegu ci yoonu jub ci sunna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ci alquran al azim na fa maa halaka man tamassaka bihima ku tënku ci alquran al azim ak sunna muhammad sallallahu alayhi dara du la mën a loor ci àdduna ak lu moom ak lu àdduna tërëdi tërëdi ku tënku ci alquran te loolu moom manqué sunu ja sunu sunu société bi tey ku tënku ci alquran ak sunu Muhammad sallallahu alayhi wasallam doo musa loru nee na moo ngi dénk njabootam muñ rawatina muñ ci première infraction lu la lu la bett bu mu tax nga saalit na nga prévoir muñ te xam ni lépp lu lu yàlla dogal ci yow kenn mënu ko randal te kenn munu kenn munu la teg lenn lu lay lor lu du yàlla qul lan yusibana illa ma kataba allah lana mu dellu tamit ni wa sabru ala taati bi sabri an al ma'siyah jamu yàlla yombul na ngeena a fexe ba muñ ci jamu yàlla muñ ci santane yàlla muñ ba bañ a def lu neexul yàlla subhanahu wa taala mu dellu tamit ni maa ngi leen di dénk ngeen di tabe ma dégg leen ngeen di faral di wax taaliba xaadir day tabe cheikh na cheikh saad bu ci biir dénkaaneem dafa ni usikum bi badlil maali lil fuqaraai wal masaakin wa lil qurba silatan nee na ngeen di jël seen alal di ci jox seeni mbokk mbokk di ci waslu di ci dox mbokk waaye tamit di ko jox miskiine yi cheikh na dellu tamit ni wa usikum bi shuaraay gis na na dafa dem ba ci biir ndénkaaneem ci taalibe yi ak njabootam dafa ni même même même même su même waykat yi sax même ñi nga xam ni ci seeni kàddu la ñuy dund foo leen gis rek teral leen Cheikh na Cheikh Saad loolu la wax ndax lan nga setal sa der ndax nit nag bu la dëgmalee am yaakaar ci yow te yaakaaram amul leen lu mu koy defee wala lu mu koy manifester sa kanam lu du tàggal la say maam Cheikh na nee na buñ la buñ la fekkee teral leen ci li la yàlla may mu dellu tamit ni siyaanate wawsikum bi ikraami dayf cheikh na dafa dénkaane ci njabootam ak taalibe mi nan di teral seeni gan gan yàllaa ko njëkk a dénkaane yonent salaa sallam dellu dénkaane ko mais cheikh na si saadu tamit gën bantuwaat loolu que ni nan di teral sunu gan yi mu dellu tamit ni taalibe yi ak doom yi nañu sell nañu jubalal seeni kàddu te bu benn taalibe cheikh na wax lu dul naka noonu ak lu dul dëgg loolu cheikh na dénkaane na ko mu dellu tamit nu usikum bi ikraami dayf wa sidqi lahjati wa ikraami ahli salaahi te ngay màggal nitu yàlla yi képp kun leen wax ni kii sëtu diw la te ñu njort ke ni wala ñu xamoon ni maamam ku baax la ak ku yàlla teral la yow foo ko mën a loo ko mën a fekke rek ak foo ko mën a fekk Cheikh na nee na teral ko te jox ko cëram mu dellu tamit ni borom xam-xam yi na leen di jox seen mart seen xorma ndax xam-xam yàllaa ko teral ak tamit foo mën a gis borom bi jaaw cëral leen ko même sax ñi mag sax ci njabootam tamit foo leen mën a gis borom bi jaaw même bu dee sax sa jaam boo xam ni ca yooyu jamono yaa ko jënd ci sa alal bu dee borom bi jaaw la jox ko cëram loolu la Cheikh na dénkaane mu dellu tamit dénk ci biir dénkaanem moo ni usikum bil ulfati thumma usikum bil ulfati wa usikum thumma usikum biha Cheikh na Cheikh Saad bu dafa dénk njabootam yëpp ke ni nañu bennoo mu dellu ni maa ngi leen maa ngi bantuwaat li ma wax ngal la fex fexe leen ngeen nekk benn ngeen delluwaat tamit nekk benn te loolu cheikh na cheikh saad bu bind na ko ci wasiyaam bi mu yónni loon cheikh day caraw sekk ba mu ni ko wala tanaazacu fa tafshalu wa tadhaba riixukum bu leen xiiroo bu leen xiccoo bu leen féewaloo ndax boo leen ko defee rek yàlla day yóbbu seen xorom day yóbbu seen bayre day yóbbu seen daraja ndax riix mooy baraka ak daraja boobu ndenkaane bind na ko sax jëmale ko ci njabootam ak taalibeem yépp ke ni usikum thumma usikum thumma usikum bil ulfati ngeen nekk benn ngeen nekk ci benn say bi yàlla wax wa tasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu wa kunu ibadallahi ixwana te jàpp naa ni jamono bii nu toll tey dafa mel ni ndenkaane boobu tey lañ ko gën a soxla soxla biñ ko soxla nag mooy ke ni bëñ ak làmmiñ ñoo dëkk yenn saay ñu laalante mais terewul que ñooy dëkk ñooy nekk ba faw lii xew tey ci jamono xew ci kër Cheikh na Cheikh Saad dama ci profité wu lancer message jëmale ko ci taalibe yi nañ xam ne taalibe bi gën ci taalibe yi mooy ki gën a màndu mm-hmm. ki gën a téye ab taalibeem ki gën a téye ngëm-ngëmam ci Cheikh na Cheikh Saad Bou ki gën a téye ndénkaane Cheikh na Cheikh dudul nañu nekk benn te bañ a féewale te bañ a tamit duggal ci sunu biir ay tendance parce que amul place ci kër Cheikh na Cheikh Saad ci biir ndénkaaneem boobu Cheikh na lii nit yi di wax parité mhm. parité lañ koy wax mhm, euh, jëmale ko ci jigéen Cheikh na dafa ci biir ndénkaaneem dafa dénk ke ni jigéen nañ ko ormal mhm. jigéen nañ ko jox cëram jigéen nañ ko yëkkati ci kaw te bañ ko sonal bañ ko teg coona tënk ko nag ci waxu yàlla subhaanahu wa ci biir sax way dencante yi dafa ni imsaakum cheikh na ni soit koo ci àndal bu dee ci mbirum sëy إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان تي برافت بيالا gërëm bu yàlla santaane waaye wala itam bàyyi bu sell boo xam ni coow du ci jib lu ñaaw du ci jib mooy imsaakum bi maarufin aw tasrihum bi ihsan cheikh na dénk na ko mu dellu tamit dénk taalibe mi ak njabootam parce que ndénkaana bi ci njabootam da ko jëmale ak taalibeem mu ni usikum ci seeni jigéenu bopp rawatina ñi nga xam ni amuñu kunu nu bokkal ndey ak bay yow mi am sa jigen bo bokkal nday ak bay cheikh na cheikh saad dafa ni boo sa jigen bo xamni bay nga bokkal te mom amul kumu mu bokkal ndey ak bay mom nga wara gëna privilège que ki nga bokkal nday ak bay ak ñeneen ñi mu bokkal parce que mom amul kumu mu bokkal ndey ak bay cheikh na def nako ci biir wasa cheikh na delu ni wa usikum ala bururi ibni البرور موي لي يالا سانتاني تي القران العظيم واخني وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وبرا بوالديه واخنا كنت القران العظيم موي كني مقام لبو خمني كن يلو كو تي نيت كودو نياري واجورم دو سرين du mbokk du xarit lu dul ñaari waajuram cheikh na cheikh saad bu nag mu ni maqaama boobu ak ndénkaane boobu xam ni yàlla sant na ko doom mu jëmale ko ci waajuram yi moom santaane na ko ci doomam bi nga xam ne mooy taawam muy cheikh xalifa pour doomam yi nañ ko teg ci kaw nañ ko jox cëram nan ko jiital ci seen kanam mooy taawam mooy cheikh xalifa cheikh xalifa boobu moo njëkk a nekk xalifa cheikh na cheikh saadu abi tey moom moo meññi cheikh mouhamad taqiyullah mu meññi cheikh na cheikh saad bu tey mii muy sunu xalifa ci kaw suuf doomu cheikh mouhamad taqiyullah doomu cheikh xalifa doomu cheikh na cheikh saad bu moo njëkk a nekk xalifa cheikh na cheikh saad bu wa usikum ala qadaai deyni cheikh na ni loolu tamit njàngale la boo xam ni pour njabootam la mooy que ni balaa ngeen may denc fexe leen ba xool ndax ameluma kenn bor loolu dafa baax ci seen néew balaa nga koy denc balaa muy jot laaju balaa mu jot malaayika yi li gën ci moom mooy mu fekk ñu fayal ko borom yëpp wala engagel ko ko mu dellu tamit ni maa ngi leen di dénk ngeen bindal ma shahaadatain mooy ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammada rasulullah ak aaya bi nu wax shahida allahu annahu laa ilaha illa huwa walmalaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist nee na nañ ko def ci boppam loolu mat naa xam mat naa bàyyi xel mat naa dénkaane ndax cheikh na cheikh Saad bu mi ko dénkaan xam na lu ci nekk mu dellu tamit ni aaya beneen aaya bi wa indahuma fatixul xaybi laa yaclamuha illa huwa ba ilaa mubin aaya boobu tamit nañ ko ko defal ci tànkam yi bind ko ci këyit def ko ci ay tànkam ginnaaw loolu nag mu ni yàlla ci ngëm-ngëmam ci tawxiidu cheikh na cheikh Saad Bou mu ni wallahu yatawalla amri maanaam ginnaaw loolu sama dénkaane bi nga xam ni dénk naa leen ko ci seen diggante ak seen borom dénk leen ko ci seen diggante ak seen morom mooy gan denk leen ko ci seen jaamu yàlla mooy seen message mooy seeni jàkka dénk leen ko ci seeni diggante ay bokk la war seen diggante ak ñoom ci teral leen ak la war seen diggante ak société bi pour jox leen defar leen ay teraanga mu dellu ci boppam moom Cheikh na Cheikh saat Bou ni loolu nag bu jotee defar leen ma li nga xam ni sunna la te boo leen ma ko defaree nag yàlla may féetewu ginnaaw loolu yëpp ndax loolu yëpp ay sabab la mi ngi noonu mu doon dénkaane bu solo boo xam ni Cheikh na Cheikh saat bu dénk na ko bàyyi ci ay taalibeem dénk na ko bàyyi ko ci ay doomam dénk na ko bàyyi ko ci ay sëtam dénk na ko bàyyi ko ci bépp jullit boo xam ne yaa ngi foon mais ay dara bu ñu doon ñëwoon rek maanaam ci Cheikh Saad bu naka la génn àddina en fait ndax ñuy dégg ci biir waxtaan bu ñu ci jàngatee que moom su jaarul ci sukuraat hmm. kon moom naka la wujjee borom suñu borom laataa ñuy ñëw ci li nga xam ni mooy tëj waxtaan bi incha allah. jërëjëf Cheikh na balaa mu génn àdduna ci ay fan yu néew dafa lancer message jëmale ko ci jëmmi boppam mhm. muy waxtaan gu mu waxtaan ak njaganaayam di ko répéter taalibe yi ak ñi ko wër di ko déglu mu ni yaa nafsu inna alqabra xallafaahu فقولي لا إله إلا الله تذكري وحدتي إياه فقولي لا إله إلا الله مني بكن بامبل مونجه وبين جمينيم لما خار من شيخنا الشيخ سعد وابي بانتول بانتواتل بات ميغا خامني موم لا يونت صلى الله عليه وسلم واخ افضل ما قلته انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله لي گنت لي ما واخ مان يونت يالله محمد صلى الله عليه وسلم اك يونت ما جيتو موي منوم بات موي لا اله الا الله شيخنا شيخ سعد دي نوت بكانم ديكو ديكو ديكو تاغات pour mu répéter ci cheikh ci waxin la ndax loolu njàngale la boo xam ni ñun ñii la bëgg ñu jëriñoo ko ci ginnaaw tadakkari wixdati iyaahu yow bakkan parce que bakkan ak sa jëmm duñu benn mu ni ko tadakkari wixdati iyaahu nga la fàttalikul buun la dugalee ba ci biir sa weetaay ci biir bàmmeel sa nekkin yow képp dong ci biir bàmmeel lan munu la xettali dudul laa ilaha illallah fexeel wax ko balaa mu jot تذكري وحدتي إياه فقولي لا إله إلا الله لا تلتهي عنه بما سواه بدرجة درجة àdduna këf la walla nga nekk ci ba fàtte baat bi ndax moom rek moo la mën a xettali ci biir bàmmeel xam nga cheikh na kon tàgge na boppam mu ni rabbun karimun maa lanaa siwaahu donte lii yëpp mën na nekk ngëm ak bàyyi xel ci fi nga jëm waaye tamit dinaaw loolu yépp yaa ngi dem ci borom yërmande mhm. rabbun muy boroom mhm. karimun muy ku ku ku tabe ku ku ku bari yërmande maale naa si wax amuñu ku moom te moom xam na ni gëmuñu ku dul moom te yaakaaruñu yërmande ku moom وانك لا تتهي لا وانك فقولي لا اله الا الله بانتو رك دي واخ لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغا خامني تميت شيخنا ت سبيسيال بي نيك تي سونو ايميسيون بي تاي موي كان شيخنا شيخ سعد بو جورو الخميس le 22 ci ramadan le wii ji boromam te tey

dafa ne yowmul xamis jutu taamia bisu alxamis maa ngi ñëw di xaaraani bisu alxamis maa ngi ñëw di yalwaani bisu alxamis maa ngi ñëw di di di sibooru ci ki nga xam ni lahul baqaau wal kamaalu moom rekk mooy aji nekk fii mooy ki nga xam ni mooy baaqi mooy ki nga xam ni du fi mus a jóge ak mooy ki nga xam ni mooy aji yërmande mooy aji mat ba ku mat moom moo la matal mooy yàlla subhanahu wa taala bi ne suba te cheikh na cheikh saad bu di tax sax ma war a parce que cheikh na feebarul ba ñu koy tëral cheikh na fa mu fa mu nekk nii fa la xaymaam nekkoon fi ñu ko denc tey fi cheikh na cheikh Saad bu tay nek fofu la xaymaam nek te amul dara dara dara dara lo xamni mo defar bopam ci lépp te xamal tamit te bisu al khamis neena la bisu al arba la nek te yomul khamis jitu tamia kon cheikh na cheikh Saad bu xamna ba pare ke ni kagn la ak fan la ak ban heure la parce que ba muy ba muy jox wax siyaam tamit dafa ni na malgré Cheikh Mouhamed Taqiyullah mi ñuy wax atqaana du moom mooy taawu Cheikh na Cheikh Saad Bou mais moom la dénkaane ke ni moom moo koy sang moom ak taalibeem Bachir te naka jiite moom atqaana donte dénkaane na ke ni Cheikh al mooy xalifaam te moom moo koy wuutu dénkaane njaboot bi ke ni nañ ko jàpp nañ ko jàpp nañ ko jàpp lu ñu mën ci jàpp ko nañ ko ko defal waaye at xaana la wax ni moo koy jiite kon Cheikh na xamoon na kañ la ak fan la. barkaal mu mel ni que Cheikh Cheikh Saad bu leral na seede yàlla Cheikh sad bu leral na ginnaawam laataa muy dem leral na li nga xam ne moo di njabootam tubaarkaal la mais xanaa rek xam naa ni bëri na ñu ñu bëggoon na boole ci émission bi mais xam naa dañ koy tënk rek daal di ñëw ci li nga xam ne mooy yóbbalu Nimzaat bi ndax buñ nee Nimzaat. wax dëkku ngëneel ndax seesaat ba wax na ba wax ci euh, ci dëkk ba wax jaxal ba di yaaka baytikal xaraam dalam ca wax yépp euh, ak euh, màkka kon Aidara Chérif ban melokaan la taalibe war a am biir Nimzaat laataa ñuy ñëw ci nag nga fa war a nekkee ak lan nga fa war a moytu lan nga fa a def mais ban melokaan la taalibe war a nekk biir Nimzaat melokaanu taalibe xaadir mm, génnul ci warul génn lu sunna taalibe bu mën a doon sax waaye tariqa bi nga xam ne ñun ñoo ko seq dañ ko tëgg ci kitaabullahi wa sunnat rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam tariqa bi ponk yu yuñ ko tëggee mooy téere yàlla mooy taqwa ragal yàlla topp ndenkaaneem wattu ay tereem sunna rasulillah sallallahu wa sallam mooy tegu ci sunna lépp lu yonant bi santaane jëfe ko lépp lu sunna sib nga wattu ko kon loolu bu amee mooy keni ki nga xam ni dafa shedd rixaal ki nga xam ni dafa dafa laxasu gàddaay jëm jóge réew ba réew jàpp naa ni caaxaan warula tax a jub ndax caaxaan bàyyi nga ko sa ginnaaw te njort naa ni amul kenn kuy jóge tamit fii di traverser kilomètre yu bari yi bay traverser ay géej hmm. ngir dem caaxaan kon bu la yiw yóbboo danga ko war a comporté wu ci sa doxalin ak sa doxin ak sa waxin ak sa jëfin te bi ngay déparé fii nga war a tàmbale loolu ko ak ki nga dendal ci bis wala oto wala kaar wala njaganjaay wala saret wala lu munta doon ka nga dendal ci comportement boobu nga war a tàmbale ak moom commencé ko noonu ci sa waxin ci sa jëfin ci sa comportement boo xam ni ay nawle yu ànd yoo xam ni kenn ku ci ne war naa bàyyi xel ci moroomam kenn ni sunu ñibbee ba tàqalikoo war ngaa mën a bàyyi foofu loo xam ni dañ lay nawe liñ lay nawee nag mooy waxin ju rafet mooy kàddu gu sell mooy jëf ju sell mooy waxtu bu jotee ñu gis ni la ngay woote ak la ngay wuuti yaa ngi dëppoo ak moom waaye yal musel, yàlla musal ci ngay génne ay kàddu yu sellul yu tegganewul ngay comporter wu du sol colin bu wul bu waxtu julli jotee doo buuj ca sa place bu nyagas nyagas bu ndaw amee ci yoon wala ku la dubre wala koo fekk sa kanam ci frontière ngay saaga di génne terme yoo xam ni sellul yàlla sipp na ko yoonu salaat sipp na ko Cheikhna Cheikh Saad Bou sipp na ko ba pare nga ni yow yaa ngi uti yiw loolu lu mat a bàyyi xel la jigéen yi tamit naka noonu parce que lii xale góor yi ak ñëpp ak mag yi sax mais tamit seen comportement nañ ko xool bu baax kuy dem Nimzaat na xam ni demul xawaare na xam ni demul ngénte mm-hmm. na xam ni demul ci invitation VIP mm-hmm. na xam ni ci àll bu xonq cuur la jëm di wuti yàlla mm-hmm. di fa fekk gaynde boo xam ni nag ca àll boobu la tëdd te ku koy wuti danga war a mel melokaan boo xam ni boo ko dëgmalee dina la boole ci ay gani boppam yu muy ak yëral boppam waaye yal nañ yàlla musal ci ñoo xam ni daf leen sib daf leen jéppi ndax seen colin parce que ku fi jóge balaa ngay génn sa buntu kër yàlla muuril na cheikh na cheikh Saad bu kiiraay bi dox sa diggante ak moom ba xam ndax dangay bokk ci ñi nga xam ni ñoom la wax wacca darixiya ka beytika alxaram tuqdaa xaajaatu saairi al anaam walla doo ci bokk mm-hmm. ndax moom Cheikhna Cheikh Saad Bou dafa ñaan yàlla ci mbaaxam moom mi nga xam ni mooy maye te lu ko soob mu def ko na na ko yàlla defal xabroom boobu mu méngoo ak kaabatullahi lu waay ñaan ca kaaba ba yàlla nangul la ko mindeef mu mën a doon boo ñëwee ci xabroom moom nga ñaan loo fa ñaan yàlla yàlla defal la ko te nag te nag ab jaahil ak ku gàtt xam-xam te gàtt gis-gis mm-hmm. mooy contesté li ma wax mm-hmm. waaye boo xamee ni yàllaay maye mm-hmm. te yàllaa moom kaaba ba te yàllaa moom xabru cheikh na cheikh Saad bu te yàlla moo ni ud'uuni astajib lakum ñaan leen ma ma may leen yow boo ko ñaanoon yàlla def sa xabru ëllëg mel ni kaaba ba amaana yàlla nangu la ko ndax yàllaa yi du nangu du jaam mooy maye yàlla mooy maye barkaal euh, ba tey ñu ngi ci li nga xam ne moo di comportement taalibe ci Nimzaat mi nga dugg ci point bu solo mooy ñaan gi maanaam naka la ñu war a mën a ñaanee ci biir xabru Soxna Cheikh Saad Bou ndax des fois nga gis que ñoo xam ne xëy na dañuy ñaan peut-être que duñ dul xam naka la ñu war a mën a ñaanee foofu que dañuy wax mel ni que dañuy wax ak koo xam ni euh, comme di wax ak jàkkaarloo Ahmed Lamine di ko ñaanloo sa soxla mais naka la ñu war a mën a ñaanee ci biir xabru Soxna Cheikh Saad Bou boo fa duggee naka nga war a njëkkee boo duggee man kooku nag war a am ci biir xabru bi. جرجف لولو ام صلو لا باسكو نيون سونو طريقه بي طريقه توحيديه لا طريقه بو خامني امول بوكالي نيون سونو طريقه امول بوكالي نيون نانيو خامني سونو طريقه بي دا تنكو تي كينال يالا سبحانه وتعالى خامني يالا كين تا خامني يونس يالا محمد صلى الله عليه وسلم موي خاتم الانبياء والمرسلين تا خامني شيخنا الشيخ سعد بو مينيو فيك جامو يالا boo xam ni yàllaa ko sàkk yàlla xool ba mu neex ko jëlaat ko ci moom hmm. mu am ay jëf yu mu jëflante digganteem ak boromam yàlla baaxeenu ko mu gàddaay kër baayam cheikh na cheikh Mohammed Wade l'âge de quatorze ans di wàcc di wàcc di wàcc ba ñëw dugg Sénégal ba muy ñëw utiwul juddu bu mag utiwul alal utiwul tur dafa ñëw ngir wasaare woote maamam rasulullah sallallahu suñu boroom dogal ci moom ke ni waajuram Cheikh Ahmad Fadil tegal ko ci kaw boppam meetal boobu bi nga xam ni def ko ni daha ala anaam teg ko ci loosu jaamu yàlla yi ku gis sa meetal bii mu neex ko naqari ko yàlla dina ko dina ko noot mu topp ci sa ginnaaw woote mu ni ko wallahi law wadataha ala uudin ndax axdarra billahi mu ni ko wallahi boo ko tegee tegee ci kaw jàncax bu wow dina sax ba rafet hmm. mel ni lu musul wow loo ko teg ci kawam mu waw dina tooy loolu la Cheikh Hamza wax Cheikh bi mu duggee Sénégal ñun ñii fi nekk su ma nee ñun ñi taalibe yi parce que ci laa bokk yàlla noot suñu bakkan ci bëgg Cheikh na Cheikh Saad Bou ci yaakaar Cheikh na Cheikh Saad mm-hmm. waaye boobu yaakaar ni yépp ak bëgg taxul nu jàpp ni Cheikh na Cheikh Saad Bou moo nu sàkk taxul ñu jàpp Cheikh na Cheikh Saad moo nu jox wërsëg taxul Cheikh na Cheikh moo ni xañ wërsëg taxul Cheikh na Cheikh moo yor suñuy bakkan déedéet dañuy xam ni jaamu yàlla la boo xam ni digganteem ak boromam defar na ko ba mu rafet digganteem ak maamam rasulullah sallallahu alayhi wasallam defar na ko ba mu rafet bu nu duggee ba tiim ko mhm. dañ koy ñaanal yàlla déjà moom ndax soxla na ko la ngay njëkk def mooy nga ñaanal yàlla Cheikh na Cheikh bu ci li nga mën mhm. bu fekkente ni mën nga li nga xam ni mooy fatiha ak lixlaas inna anzalnaahu fi laylatul qadri ayatul kursi nga def ko liñ ko waxe ak liñ ko santane bu de xamoo loolu tamit ayatul kursi amul defana ni kenn ku ko mokkalu te ku ko mokkalu te nga fexe ba mokkal ko parce que aaya saar bu gàtt la boo xam ni loo ci def lim boo ci def rek xéewal la nga jël ko jang ko noko jange boko boo ko defee fukki yoon ak ben boko ko defee ñaari yon boko ko témer yon ak fuk ak ben nga ni li jang na ko mang koy def to rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ko def hadiya cheikh na cheikh saad bu mi fi teud ak njabotam ak jullitu yalla yi fi nekk booy di ñaan da ngay ñaan yalla déjà hmm. parce que wara ñaan yalla ngay ñaan mang gi lay ñaan yow yalla hmm. ci ci sa màggaay mm-hmm. ak ci barke rasulillah sallallahu alayhi wasallam ak ci barke sa jaam bi tëdd ndax jaamu yàlla la wallaahi barkeem ci sujuudam mm-hmm. barkeem ci ruku ba mu doon ruku mm-hmm. barkeem ci jaamu gi mu la doon jaamu barkeem ci wéetal gi mu la wéetalaloon ci àll bi ba lépp fekk ko fi yow yàlla defal ma nangam ak nangam waaye bokkaale weesuwul dinaa Cheikh na Cheikh Saad bu may ma Cheikh na Cheikh Saad mayul kenn dara. Cheikh na bu defal ma Cheikh na Cheikh Saad bu defalul kenn dara. déedéet. Cheikh na Cheikh Saad bu diw nee na nangam ak nangam nga defal ko nangam ak nangam loolu bokkaale la. waaye ñaanal yàlla ci barke Cheikh na Cheikh Saad bu ci barke jaamu yàlla gi Cheikh na Cheikh Saad bu jaamu loolu mooy li jaadu te moom mooy sunna te leen lu dul loolu bokkaale la. barkaal mi ngi noonu leneen lu dul loolu bokkaal muy lu mat a bàyyi xel lu mat a sóoraale surtout ñun taalibe yi ndax bi may dem baar sekk bi may yóbbante ne naa ko ñaanal yàlla seen saat bu may ko jabar xëy na bu ma demoon mën naa ko bañ a waxee comme ni ko waxee mm-hmm. kon mu doon loo xam ni euh, lu nit mën a euh, euh, daal di woddu boo duggee nga ni ko sërif waxee rek daal di koy defee noonu laataa nga seen soxla te xam ne yàlla moo am aaju tey faj mais yàlla mi am aaju tey faj moo def ci barke góor gi tëdd foofu ba tax nga jóge Sénégal dem ba fi nga xam ne moo di Nimzaat ngir ñaan fa yàlla soxla aju faju tarkaala ay dara xanaa xam naa ni tey nañu la ndax waxtu wi matew ko xanaa ñëw daal di lay bàyyi rek joxe kàddu gu mujj gi daal ñu ñaanal euh, ndax euh, wax dëgg fa la bëgg nañu loolu ci dalal bii ndax amoo jot waaye fex nga ba boole ñu ci bis bi xanaa rek ñu bàyyi la nga joxe kàddu gu mujj gi ci chauffeur yi nga xam ni ñooy dem ci daw nank beeg yooyu waaye emprunté yi nga xam ni am na ñu mës dem am na ñu mësu dem Nimzaat ñi nga xam ni ndax sànq ñu ngi waxtaan euh, bu njëkk ba Nimzaat daal nga bàyyi sa alal fi nga koy teg kenn du ko laal mais mu mel ni que léegi sàcc gi bëri na loolu biir Nimzaat te xëy na bu doon taalibe bi nga xam ni daa jugee bokk mouvement Abraar taalibe Cheikh Mahamad Lamine a jóge Yoof wala Wakka wala nga jóge raw wala fu taalibe Ahmad Lamine mën a nekk doo dem ba Nimzaat bàyyi fa sa dal di dem dalu keneen naan da ngay jël yëf jàmb ndax doo ko tal ndax nii la Ahmad Lamine yare muy xëy na ñeen ñi nga xam ne dañuy ñëw mel ni Baara Seck nga xam ni euh, kenn xamul fu ñu bokk buñ ñëwee ñoom dinañ ñu am beneen melokaan boo xam ni euh, xëy na duñu xam valeuru dëkk bi wala duñu xam valeuru ki tëdd foofu moo tax ñuy jël yëfi jàmbur wala di am benn comportement biir Nimzaat. jërëjëf Ousmane bàyyi di tooñ Baara Baara xam nañ fa mu bokk euh, maa ngi sant baax ci question bi am na solo lool euh, Nimzaat euh, dëkk la boo xam ni dëkku lislaam dëkk la boo xam ni dëkku defar xol yi la dëkk la boo xam ni dafa sell suuf si sell ndaxte. jàpp naa ni dëkk boo xam ni kenn mosu fa dégg misik te kenn mosu fa rey nit mm-hmm. te kenn mosu fa naan sàngara mu sell yàlla sellal ko lu fi waay leneen def lu dul liñ ko tëggee ak li ko boromam sànce yaa ngi tooñ yàlla tooñ yonent bi sallallahu alayhi wasallam tooñ Cheikh na Cheikh Saadu tooñ ñun ñi Eh, lu wér te wóor ni taalibe yi nga xam ni kenn ku ci ne danga paas sa paas boo xam ni amaana sa doole eggu fa mm-hmm. sa man mën yeggu fa mm-hmm. eh, jóge réew ba réew bàyyi ñenn ci sa jabooti bopp ñoo xam ni ñoo ngi feetu korite kenn ku ne xam na feetu korite ci biir Sénégal la cay xew yépp ci ay maanaam xéewal ak li mm. ko askan bi baaxoo taalibe cheikh na bàyyi loolu yépp wan ko ginnaaw caaxaan ko dem euh, tilimal suufu cheikh na cheikh Saad bu taxu ko dem bu fekkente ni nag at yu mujj yi ñoo ngi seetlu que ni am na yoo xam ni ñoo ngi ñoo ngi ko fa ñoo ngi fay gis ñoo ñoo ngi ko fay gis euh, ñu ni renseigner kenn tamit am na lu fay xew ci yenn barab yi muy garage bi ak yu demee noonu mm-hmm. ren dañ ci jël matuwaay yu am solo yoo xam ni li nga xam ni mooy comité pilotage bi nga xam ni Cheikh Saad bu doom Cheikh Matakoula moo ko jiite euh, bu Louga jël nañ ci ay matuwaay yu am solo yoo xam ni euh, ak état Mauritanie bu fekkente ne am na ay caaxaankat yoo xam ne doon nanu ra doonoon nanu rax ci yëf yi ci turu transporteur yi ak yu mel noonu bu yeboo ñu seggi seeni bopp lu mu gën a teel ndax la woon dafa wuni te dafa am loo xam ne ñun dañ ko doon bañ mooy autorités Mauritanie toujours dañ doon taxaw seen diggante ak ñu def benn jëfin joo xam ni mën naa xaw a niru sax ak maltraité wala bundu xatal mm-hmm. wala teg coono képp kuy ganu Cheikh na Cheikh Saad Bou waaye bu mbir mi demee ba bëgg laal nag patrimoine Cheikh na Cheikh Saad Bou laal orma Cheikh na Cheikh Saad Bou dañ ci joxe ay ay ay ay ay loolu nañ ci bàyyi xel bu baax te kun fa gis nga doxalin benn doxalin bu méngewul ak nimsaat ak barab ba bu soobee yàlla sa ñibbi Sénégal dina yéex lool. mi ngi noonu kon muy matuwaay yu am solo yoo xam ni ni mu ko waxee jël nañu ko ci nimsaat bi pour ñi nga xam yéen daan dem te nii xëy na du demee comme ni ñu koy demee macha allah ay kontaan nañu xanaa di la ñaanal sa borom la fi lool ba ànd ak wér. Mm. nga yàgg di jiite mouvement Abrar moom ay biis yu biis lay gaare fu ci nekk ci Yoff fu nekk taalibe yi di fa départ wutu di di ziar gi. sànni si waa Ngor ak waa Ngor Ngor surtout waa Tarkalla moom mooy borom Ngor xam nga c'est di cap xam nga kon yaay borom ndakaaru kon kon mi noonu dañ koy bàyyi rek mu daal di joxe euh, kàddu gu mujj gi euh, euh, daal ñu ñaanal ba ñu koy fekkaat ni daal du ñàkk dinañ am yeneen jotaay ak moom ndax moom waa Al Moukhtar ñu ngi lay remercier bu baax a baax di kontaan ci yow xam naa ne bokk ba almuxtaar waaye maa ngi wax ci seen tur rek ci turu PDG bi Khalifa ak ki nga nga xam ne moo di ñu ngi kontaan ci yéen bu baax a baax di leen gërëm ak man man mu xeebu mi ak Alaaji Baara Seck ñu ngi la ak Abdallah mi nga xam ne moo ñu bokk macha allah ay ngi lay kontaanee di la ñaanal jàmm di la wax jërëjëf kilifa gi moom ñu koy jaar bu baax a baax macha allah sëñ moom la ñu bàyyi la nga joxe kàddu gu mujj gi daal ñu ñaanal ñu yeewee ko benn yoon incha allah jërëjëf ñoo ngi leen di sant bu baax di sant waa Al TV seen taxawaay ci biir tariqa bi dëgg yàlla xat na lool lool lool waaye seen pas-pas ak seen pasteef ak seen bëgg kër gi ak tamit euh, sacrifier seen lépp ngir lépp lu jëm ci kër gi ñu nekk ci ñoom ñooy ñoo ci nekk ci bopp bi mm-hmm. euh, loolu maa ngi koy remarqué bu baax di leen ci sant di leen ci ñaanal yàlla fi ñu bëgg yegg yal na leen fa yàlla yeggal ci barke na salaa yoonu ndam ak yoonu réussite dafa jege te dafa sori waaye ku ko jaar yoon bi mu ko war a jaarale rek dina teel a egg yal na leen ko yàlla defal ñuy dellu di sant di ñaanal yàlla bu baax sunu xalifa ci kaw suuf muy xalifa rasulillah salaa sallama لخليفة الشيخ من الشيخ سعد وأبيه للشيخ سعد بو دوم شاه متق الله دوم شاه الخليفة دوم شاه الشيخ سعد بو di ko ñaanal yàlla yàlla nañu koy yàlla bàyyil fi ba ci kanam a kanam suñu borom guddal fanam wëral ay cëram ba naal bi mu bëgg def ci kër maamam yàlla na ko yàlla yombalal te woyofalal ko ko te bëgg gi mu bëgg uuf njabootam bi ko cheikh na cheikh saad bu bàyyil yàlla na ko yàlla kàttanal ci barke rasulullah sallallahu alayhi wa moom ak ñi muy àndal ñë ak ñi mu àndal ci loolu yëpp muy sunu mag yu tedd yu sell yi nga xam ni ñoo jokkoo ak moom jox ko lépp jébbal ko lépp di dellu di wax taalibe yi keni nimjaat mooy ramzul huda nimjaat mooy biddeewu texe te nit ku ne la nga yóbbu marché rek moom nga fay jële te kuy dem dugg ji ci ku mel ni cheikh na cheikh saad bu danga war a làmboo jikko jikkoy jullit xaqan mooy yar teggin ndax moom ba muy sant yàlla subhanahu wa taala dafa ne alhamdulillahi alladi liya wahab ilman wa xilman وتقى كذا النسب ما انقي سانتي الله بينا خامني دفرنا ما خم خم اك لوت اك ير اك جد جمعك جعلني من نسل طه احمد دفنا ما مبوك تشارلالا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مبوك اي ستي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والاولياء كلهم ليشهدا سسر انت ما سر ان شاءنا شخصات بو غيرت دفني ولي يا الله مبولم ولي يا الله يب سادناني من ماي سين قطب نانغوناني من ماي سين سرين داكور نانو كني من ماي سين ختل تي كانو سما رسول الله صلى الله عليه وسلم mu dellu wax la yow taalibaam wa anna man baayaani al awliyaau kulluhum li yashhada bi annani qutbul wara baada annabi wallahi walu yàlla yëpp mbooleem walu yàlla ginnaaw yonent yàlla muhammad salallahu alayhi wasallam sallam ginnaaw sama baay chan Ahmad Fadal maay seen chef maay seen marichal maay seen ki nga xam ni ñoom ñëpp maa nekk ci kanam ñu nekk ci ginnaaw loolu nag bu la ko yàlla defalee yow taaliba Cheikh na Cheikh mu dellu ni wa anna man baayaani min al ummati képp ku jaayante ak man ci xeetu yonent bi yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam adxalahu llahu fi naimi jannati c'est laissé passer man Cheikh na Cheikh Saad bu prévoir naa ko ba pare pour àjjana taaliba Cheikh na Cheikh Saad du dugg safara taaliba Cheikh na Cheikh Saad du dugg safara mais kan mooy taaliba Cheikh na Cheikh Saad mooy ki làmboo jikkoy taalibe Cheikh na Cheikh mm. mooy ki làmboo jikkoy jikkoy ak sunna kooku mooy taalibe Cheikh na Cheikh bu nu réela la mbir wëyu bu mu tëdd fële ni man taalibe Cheikh na Cheikh Saad damay dugg àjjana nax nga sa bopp mm. bandi bu mu tëdd fële ni man taalibe Cheikh na Cheikh dugg naa àjjana du dëgg taalibe Cheikh na Cheikh mooy ki làmboo alquran ak sunna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kooku mooy taalibe Cheikh na Cheikh mi mu wax ci man moom wa anna man baayaani fi ummati adxalahu llahu naima jannati wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh maaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu kon mu nekk lu am solo lu kàddu yoo xam ni xam naa ni du ñàkk dinañ am yeneen jotaay yoo xam ni dinañu xam lan mooy taalibe yan comportement la taalibe war a am bëri na yoo xam ni junj na ko yoo xam ni yëpp ay débat la tey waxtu wee xaddam incha allah ñu ngi leen jox rendez-vous à bientôt yeneen di jotaay yoo xam ni dinañ ñu ko sekk ak Cheikh Mohamed ak yeneen di jàmbaar bàyyi la naa yaar banaa fii Sénégal bi jaay xattala risaale wala jaal tunga ni du teew ñuy natal ñoko ko gisandoo te yéen ci teg seen beut xam ngeen lépp li information actualité rawati na lu jëm ci wàllum diine Al Moukhtar TV dañu ko téye ci suñuy loxo kon nak abonné leen te laal cloche de notification bi ngir lu duggal ngeen teel ci mëna jot Al Moukhtar TV moy seen bi xew ci jamono.